mooy Lac de Guiers 2 bu mag bi am from Guédiawaye ñun ñooy waa Jiwe ñun ñooy waa Guédiawaye mbër bu mag bi am from Guédiawaye tournoi tey ji ñu war a jàkkaarloo ki nga xamante ni amana nee ma séeréer la ñi nga xamante tay ñom ñoy wa tiajay ngeen waaj mais dañ leen fekk fi dafa melni ni mayewu leen dara bu ñewé ñëwee da ngeen ñu da ngeen da ngeen fatte buntu yépp lu xew. parce que bëss bee ko laaj rek parce que bëss mo laaj rek dañuy bëre ki nga xam mom wax rek la mën mënul dara wax la mën ay na xam ci bëss ba la dëgg amna ay mbokk am ay mbokk séeréer waa Fatick wa waa Fimela waa Mbaan waa dëkk bu nga xam ne Siré ngi foofu rek ñu ngi leen di sant di leen nuyu bu fekkee Siré mexe simnaa nuun mexe simnaa nuun a paax a paax si ta fene koy ka foogee ten waago in ne tik te waago in ne dara na la guerre foxum rama seen a Siré refu a gen mene caajaay kon boog waage ne in ne tous ku ta waaɗa rek ine moof cungang si ta xana moof walaay xana moof ine cungang bo dimanche koy xani ɗeet ndax wo waago in wala in mbaagong ko fag lar dega jege jege wa ndefna meen lar dega jega fog de fog sereer en jegu bo ɗof dara damangang xano lay leeru waaw eh, saay neex na e si tagay wa ay mbokkam waaye Lac de Guiers fekk nañ fi nag ay mbokk séeréeram lan nga wax tekki ko gars yi a xam lu ma lu mën a wax mooy maanaam ma ko moom bu mu yaakaar ne Lac de Guiers mbokk séeréer waa Fatick waa Joal Ngeeñan ba Njongoloor moo foo xam ne sii na ngi foofu rek ñu ñu ngi lay woo si bës bi nga ñëw jàppalu ñu ëpp ñu ay mbokk dara ci séeréer loolu laa koy wax mu xam boppam nag te dina yaru si dimanche jotee di nga yaru yow waaw loolu laa ko wax. lan ngay wax supporters yi parce que Siteu ku ko xam day feesal stade yéen nan ngeen di waajee combat bi tey mu des presque ay 4 ou 5 jours dimanche la déjà nooy nu waajee làmb parce que tamit mobilisation daf ci am solo. waaw ñu waa géejuwaay yëpp gis nga géejuwaay ñëpp jóg nañ ngir combat bi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne jóg nañ pour combat bi kon boog waa géejuwaay si bés baa daal jotee dinañ wane suñu bopp feese stade bu mu fees dóor ko daan ko ñibbi du neexee yàlla mii maye te loolu rek la ñuy ñaan yàlla. dañ leen fekk fii ngeen toog ci buntu kër mbër mi mu yàgg lool parce que dafa mel ni yéen 24 heures sur 24 parce li ma gis ngeen lal fi sama gars yi xanaa yéen da ngeen di fanaan fii. non du ñu chaque jour ñu ngi si guddeeg bëccëg di nekk fii waaw nelawuñu mètre mètre nelawuñu ko combat bu mu taxee biñ ko jour biñ ko signé jour boobu lañ commencé duñ fanaan suñu fanaan ñun di xaar bés ba rek waaye dina yaru de. dina yaru bu baax dina yaru bi da ciy insister mais surtout du du mbëru ñeex ñeexaat de sa waay surtout gis nañ bu baax mbër yi mu fi jaarale yëpp. saa yi kooku dara ma ñu ma bëreel ñoom bëreewul ak ñu man la dëggeer si boppam ñu ma bëreel man xaajul waajib xaaj bay bëreel ak ñooñu moom laa mën la am si kii bi rek affaire de lan ngay jéem a jaay di la woon ne ñun ay wagazaga lañ si bés rek lan lay xaar waga woo sax wagazaga lañ yéen waa am ngeen problème bu baax a baax yéen seen laami ñuy rëy nii yéen seen affaire naan moom du moo newuñu si yooyu dañuy xaar ba bés ba ñu def leen li leen di def yéen yaru leen Siteu yarul ma bëgg nga yaru bu baax ak ñeneen ak ñeneen ñi yarul bu baax a baax dinaa la dóor dinaa mbër mi mbër mi instant bii nii ci lu mu nekk actuellement nii ana mbër. mi ngi si entraînement saa sa mi ngi récupéré nii entraînement récupéré moom lañ ko sant nii santuñu ko leneen bés ba rek la ñuy xaar li ñuy sant sax mu doon tey jii tey jii lundi bii mu doon ko. ñu gis Siteu di ko anglais bu baax ci plateau yi ñeme ko trop Siteu ragalul la dëgër de. ñeme na gàttam gatam la ñeme waaw dafa ñeme gàttam ko wedee ne laa yëkkati nii. parce que lamb ji nee na moom moo Yékini ngeen daanoon Yékini revanche la Siteu di boole di. Yékini sama mbokk la sama maam moo ko yor sama maam moo ko yoroon Abdoul Thiam moo ko yoroon. ci wo xana ande am na nga Abdoul Thiam ten saqo in wo im dama ngang xana ande waagiro dara to xana moof wo xana moof billahi xana moof ceebi combat moofi meen rek fuuda njege foog de wo joga problème la ref mana leya jikwa o grand le o xamadi bo xamadi ko xamadi a xamadi a ah rek cing bo bo bés fa sax cey combat bi neex na ba noppi en tout cas Lougaré TV def nañu seen premier pas en attendant lamb ji parce que tey li ñu gis fii ci géejiwaay ñoom dèjà pare nañu pour jëm ci lamb ja waaye waa jàmm gën kenn dootu leen présenté ci lamb gis nañ ni ñuy def stade waaye gis nañ aussi bu ñëw ci lamb dañ koy neexal fecc ambiance wala lepp wa ci walu ambiance mbeur mi lan lu bees lay indil amate lu bees sax la indi lu bees sax la indi parce que combat bi dafa am lu ñu jara lu bëri bëri bëri lu bëri lañu jara parce que jaran daan lu bëri bëri duñu sañu sañoon mu doon lënd bi tay ji ñu bëri li ñuy bëri dina la door na la daan. walu ambiance li ngeen indi. ambiance dinañ indi lo xamé dal daal bi yëpp dinañ contane géej waay yëpp dinañ kontaan ñii dinañ nañ waaw waa kër Lac de Guiers nan lañ mel nii si bés boobu rek loolu la ñuy xaar ñun. am na solo ba tey gaa yaa ngi taxaw ñu buse tuuti rek euh, def naa ne dof laay séenale euh, xool sama gaa yi toog nii ci tëdd nii ah waaw sama gaa yi ngi ci caayin bi de di waaj mbër mi ah kii moom ma nga tëdd ku baax ñu ngi lay ziar. waaw ñoo ngi la fay toog normal yow nga ragal xanaa xanaa da ngaa tiit ah xam. da nga da nga mel ni ku jaaxle nii ni mu demee nii. xarxaru kanam Waly Seck yow ya, wala ab Sidi Diop. damay Waly Seck ak Sidi Diop ñun ay waykat lañ ñooñu ay ay Baye Fall lañ. ah ay góor yàlla lañ la ba xam da gis sama xarxaru kanam si ñoom. léegi sa xarxaram bu ma gisul ñooñu nag ci kan laa koy ah yee tamit wala. ngeen jëm ci combat bu dangereux. waa jàmm gën moom kenn du leen présenté xam ngeen leen bu baax war muy askan tey nan ngeen waajee combat waaw comme noonu rek la jiitu si néeg bu lëndam wala mun a wax fay toog voilà déggoo ma de bu la jiitu si néeg bu lëndam wala mun a wax fi ngay toog waaw xëy na loolu la gis loolu la fa am rek waaw ku dul si sax jaaxal ne waa moom kenn xamee ko wax lu muy appliqué lu muy géem moom ay mbir nice normal net net kenn ñëw fi ñun seul kese seul ñoom demee combat kenn koy waaj waaw comme ñoom rek combat bi suñ affaire la yow booy bi dafa ñuy xaar rek dañu xaar yi moom yam leen bi waaye borom dëkk bi waaye dëkk bi ñun ñooy borom gémar yaa ngi fii gémar yaa ngi fii lu ñuy gémee yi génn guñ de ba bis ba mais mais mais mais ci jàmm ak ci salaam parce que lat kenn musu ko xam ci violence combat am yëpp day dem bëri ci jàmm buñ ko daanee mu ñibbi si bu daanee mu ñibbi si sans problème. jàmm ak salaam rek fii lañ ko fekk moom la ñuy saaku jàmm si la lépp xaj combat la rek ñoom ñaar ñooy des si géew gi de lañ si am quoi sa waay sa waay la quoi yëpp nay rafet yee sa waay la nice wax ji nice na mais sa waay maa ngi ko fekk moom muy game sound quoi jaan wala ba dugul wax ak jaam ni ah waaye Fallou Lamine may sound bi yaa ngi game bu baax de nu nu nu nu nu mu demee noonu ah tàmbalee feetu te dara jolagul parce que rege bi nii waaw saa bi lamb commencé na depuis depuis tey tey la lundi làmb ji commencé na gis ni tey aw li ñuy xaar lenn fii fii nii nga ñu fekk nga ñëwaat fii ñu feetu fekk. ko xamul wala. ndax dama ko ndax dama ko xamul xam ko moo tax may wax. dëgër de jël benn xale bu ñu naan booy ñaar ko bu ne ci yoonu muy est-ce que ngeen pour loolu loolu loolu du débat sax pour man quoi Siteu moom daa war di sant la demee su demee ba lakk nangul ko bëreeg moom dafa war a sant bu baax a baax parce que Seydina Muhammad dafa war a sant bu baax bu baax bu togaatee mu xoolaat fii la déggee xoolaat jaar-jaaru la déggee ba lakk talal mu talal la déggee loxo lakk ne ko kaa ñu bëri dafa war a sant bu demee ba toog dafa war a xoolaat la dëgër ku ko xamul nag mooy wax si moom mais ñun ñu juddandoo ak moom yaroo ak moom màggandoo ak moom dundandoo ak moom muy naqari ñu dund ak moom muy neex ñu dund ak moom ñun ñoo la mën a wax kan mooy la dëgër te li si combat bi di nga gis beneen la kaa ma benn géejuwaay la da nga fi mos a dégg ñaari géejuwaay benn géejuwaay la waa géejuwaay yëpp pare na xam nga ku ci des waa ji ci combat bëri nañ ko ba pare. tax ko ba ñun ñi ngi feetu nii ah déggoo ñuy déglu ay sound di caan di tegu lépp. lënd yi da ngay ñëwaat mottali mooy raxas ëllëg ñu ñu fegaat fii ñu feete barki Seydina Mouhamed si kàddoon suñu borom la de guerre la Baye Fall ku ko xamul mooy wax si moom la de kan moo ko fi gën a rafet palmarès xanaa gars yi dañoo fàtte la de guerre bi woon démb. gars yi dañ naan amateur dañ naan du bëre loolu moo tax. waaw mais du bëre bërewul yow nga bëre fekk si ko yow yow kan nga gis mu sa gis mu daw song la de dal yow da ngay wax ni moom du bëre te yow doo doo ko fekki kay bu ñëwul nga dem ñëwul dama. may wax ci no violence parce que lat ko xam na ni saa yu bëree bu ñibbee jàmm rek lan ngay wax ci loolu. xam lu ñuy xeex ak ñoom. Hmm? yow fi nga ñëw nii sax fi nga ñëw nii rek gis nga fi luy niroo xeetu. jëmmi violence gis nga ko fii loo gis calme nice waa kilifa yaa ngi toog suñu papa yi seen yaay si biir néegi si biir saali boo yaa ngi gis nga jàmm nga fekk ak salaam jur combat sangu ba set sol lu rafet ñu loola ñuy géem ak ñoom violence zéro xamuñu xeex xamuñu xul dañ sol lu rafet duma leen rafet mbër mi ñëw duma leen si biir stade bi ñu gàddu ndam si kàttan saay la regeer mi yoon du de maa la ko wax de ngeen mystique bi yoon bi loolu mbër bi la wala dafa bokk ci ci làmb quoi bu ñu nee làmb culture mystique lépp ci biir moom daa seeti ay maama la de guerre tamit dem seeti ay maam ku nekk da nga seeti say maam lu la jox nga indi wala du dëgg waaw bu baax nekk ci buntu kër gi ci buntu kër mbër mi xanaa di xool gis nga boo yaa ngi ni taxaw gaa yaa ngi ni di waaj ah gaa yi ñu ngi taxaw ba tey ñoom nee nañ mbër kese saa yéen a ngi waaj combat bi yéen waa Guèye bu baax kay waaw a jàmm gën wax wax rek lañ mën de wax ji lañ am de wax ji rek lañ am wax lañ am fi combat bu wax kese dimanche soreetul. mobilisation pare ngeen. samedi dañuy def feu de joie ci kaw ñëppay ñëw. samedi ngeen di def. feu de joie fii ci koñ bi maa ngi waa géejawaay ay tinu ay gomel maa ngi woo ñëpp Saliou Kaay si woo bàyyi ma kenn maa ngi yëpp nañ ñëw ay gabi ay zoo bi daaru Ibi Diop càmm bi dëkk fii manko booy gël jàppe yi bàyyi ñu kenn déggoo. ASC yëpp nañ ñëw ASC golf ay Iba Diop nañ ñëpp ñëw bàyyi ñu kenn kese ñëpp Ada Sigo. si waajal ko réew mi Sigo ñëpp na ñëpp ñëw ay yoro na ñëpp ñëw. bëri nañ ba pare barki alxuraani karim. day mobiliser lan ngeen wax ci dem stade loolu laa wax ndax di ngeen feesal stade yéen. ñun stade bi xam nga démb feesul dimanche ba lay feesul mais bii lay fees bi nga gis waa Guédiawaye dañ kaa pare barki waaye lan waaye yan mi mbasi kan jalan la ñuy toobu ne xoolal jëlal ma kee jëlal ma photo bi jëlal ma ko kee la ñuy toobu ñun moo ñuy tax a jóg Siteu boole wuñ ko am ndam la am la nu muy bëree combat No, da koy duma daan ko nan la koy bëree da koy duma dan ko loolu yomb na de nan la koy bëree Siteu lay bëree de dañ koy sembi sembi waaw da ngeen atteindre sembi Siteu na indi ñetti mbër ñu sempi leen. waaw. Ah. waaw tey internet yi. loolu am solo. waaw ba sama gaya yaa ngi nii de. waaw ah, na déggee Siteu. Baye Siteu xam nga lan la am si combat bi. wax rek la am si combat bi. dego ma de. Siteu ne day jëf nga ne day wax. Siteu waxkat la day nekk eh, di xaañu eh, di simbu ñu simbu ñu. déggoo ma de su taxawee dëggal boppam lak dafa ko lu metti moo ko mën moo ko ëpp doole. lak doxu si dara day xaar.

ñun lag-lag la ñuy topp lag dañu kaa jaral barki Cheikh Ahmadou Bamba ñoom waa waa jàmm gi xam lu ñu mën wax ñoom tarki ndaay wax la lañ mën mais jour koor yi xam ne ñoom duñ dërëm ñun doxewuñ ci wax ñun xam lu ñu mënee ñun jëf lañ mënee ñun violence lan nga ciy wax mooy àdduna ñun dépassé ay violence jamono ji parce que jamono am lu ñu war quoi pas ngi xaar mais nañ xaar lan la leneen ñuy xaar ko war ñoo nekk di violence quoi loolu yëpp det dof la loolu defe ñoo ko dese niveau yi dafa gën a yokk heure bii gem lu neex eh ñoo mën ñoo ëpp doole eh te ñoo gën a féetee xale si boobaa li nga xam lépp tëgg la. rendez-vous kañ. non xam nga lu mu duma du la ko wax yàggatul xam nga rendez-vous bi du ma la wax. noonu la demee tey fii fii ambiance la de ambiance la mu ngi nii buntu kër la de guerre 2 ambiance la xale jigéen yaa ngi fi ah mbërëng fi di pare e dof dof kaay jëlal oyladı Kim oyladı gerdi Ember bulmak bir Amrum gecavay Nurnoy vacive Nurnoy va gecavay Ember bulmak bir Amrum gecavay